Euh, moto yi fi ngeen di jaar nag lu ko waral. non dañuy jéggi rek amuñu fu ñu jéggee moo tax ñuy jéggi. waaw mais yéen euh, fi ngeen di jaar ba yéeg xam nga doo escalier waaw mais xam ngeen lu tax ñu def fi yoon boobu. yoon bi du pour moto yi yoon bi pour ñi nga xam ne dañ am laago am puus-puus ñoom lañ defaral yoon yi du pour moto loolu dama bëgg yéen yor moto ngeen xam ko. tudd nga ko scooter yi gis nga leen ci biir tali yi ñu naan cak-cak ñu leen neex leen formé dañ a récupérer waat. formation une semaine ni la lii bu fekkente ni da nga dëgër bopp ñu récupérer sa carte. cag-cag yi moom seen dëpp moom ni ñuy dawalee bon xam nga xale ku nekk ni ngay dawale mooy li nga yëg sa sensation li mu la may alors que xale yi léegi lu ñuy dawal moom laay wax keroog même dañu ma ne bu ñu vitesse wul rek dawaluñu. di ngeen soxna sële ñeneen ngi ci kaw di jàll kii moom mu ngi wut fu mu traversé ak tànk mu ngi noonu jàll mu ngi noonu buruxlu ci biir. Euh, nga ci poto bi di traversé foo xam ne lu la fi dal yaay perte